خلم دم تخم خلم và giáo ngư ta đi nè ba hầm lời ra ngầm hầm dục buồn nên mà đã là mà đâu nhớ bơ mà con mà sợ bị mi rầm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn coole sa jooye sa njàmbat ju doy ba tax may xalam bi ma bett dootul am su am am da woon leen ma ñool ba baram dinaa xam-xamay sangi booli am garam ku liirul ku diisul ko jàngul du xam ku jàngul si dunya rek dus la xam borom xam Malato yonen ko dootu am ko wax fi xades ba yaram ba xam sa borom bi ma bet abanam ba xam sa borom bi ma bet abanam xanaa ñun julli ci Sénégal dañoo fal faate tay sunu gaal ba tey كانوا تاخر waan yardunu kan ku boole jàng ak yar kan te soo jàngee te yow yaroo li ngay wut faw ku yaru jarinoo li tax yar baax yaray tax a am yaray tax a am yaray tax a raw yaray tax nit ñi teg la si kaw ku rew yow nit ñi teg la si suuf

Bismillahirrahmanirrahim. Bozur serzevite, permete Permettez-moi de vous souhaiter à nouveau La bienvenue dans notre dara. Nous vous remercions de votre présence. À cette belle journée de récital du Coran. Et portons l'honneur à nos parents. Qui nous sont donné la chance d'apprendre les Coran. En effet, depuis que le Dara Imam Bay Djibril Diop a ouvert ses portes, Il contribue à la réussite et à la mémorisation du Coran, comme l'a si bien dit notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'une de ses hadiths, donnez une bonne éducation à vos enfants, alors apprenez trois bonnes choses, l'amour de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam l'amour de sa famille et la lecture du Coran car ceux qui apprenaient le Coran seront protégés de l'ombre de Dieu les jours où il n'y aura d'ombre que avec ses prophètes et ses frères merci encore ses parents daara yi jërëjëf le dernier messager dans les esprits il est et restera le bien-aimé doux jamais ingrat tel là visage rayonné Tel le soleil, son sourire émerveille. Appelons toujours la bonté. Même ses ennemis le reconnaissaient. Il aidait les pauvres, les faibles et les opprimés. Loin de lui l'amour de la était toujours sage, modeste et amical. Il ne répondait jamais au mal par le mal. Abu Yal a voulu l'humilier, patient Allah n'a fait que le lever. Lors des pires épreuves, il a enduré optimiste et courageuse. Il n'a jamais abandonné, dénigré et calomnié. Fier, il est resté. Ses qualités furent tellement impressionnantes que son Seigneur releva, tu es cette d'une moralité éminente, au service de tout. Il a été respectueux et engagé. Il a éduqué loin de sa précipité. Chagement, il réfléchissait. Il pardonnait et conseillait. Il motivait et soutenait. Sa volonté était de rassembler. Notre souhait aujourd'hui, est de lui rassembler. Arbre et pierre le saluer. Ciel et terre l'ont aimé. En espérant un jour le raconter au paradis avec nos bien-aimés. Il est Muhammad, le dernier messager. Pierre est salué d'Allah, sur lui jusqu'au jour dernier. sallallahu alayhi wa sallam deux yàlla suñu borom il n'est comparable à rien d'existant et rien d'existant ne lui est comparable rien n'appareille à lui et il n'appareille à rien Il est sur le Coran dans le sens qu'il a tout entendu de la même manière qu'il a tout dit. Ahim Pati Faltur Silil Wildana Waktu Tasiba Kayak Raul لا بد أن تقدم تعلمه وكن لشريعتي إلا محكمة وكن لشريعتي إلا محكمة Yo. Ya et ne peut contenir d'essence par contaisance, comme il ne peut contenir de décence. الحمد لله الذي قد أوقد نور الهدى في قلب كل من هدى وقال للقدرة كل مجتبى بصحبة قوم كرام ندبى L'islam. L'islam est la religion la plus simple de toutes. صدق مسردوي على نسيان qu'il n'y a point de divinité exbattée. Allah et Muhammad et son envoyé. وأدب الأطفال بالقرآن قراءة تلال سنى الردوان وأدم السبان بالفرقان تخلقا يعلو هدى أقراني jëf yàlla suñu borom okin ma

ba Zada la na fa dala o Fo wasila o Fala adabi L'islam L'islam est par définition la religion originelle de l'homme. Elle est l'actualisation du pacte originel entre Allah et l'ensemble des êtres créés. Ya ayo يا أيها الصبيان لا تستغلوا عن الهدى وبالعلوم استغلوا فاستغلوا بالخبز والتلاوة il est le maître de toutes choses le créateur le maître du destin et les cieux sont piliers dans sa main droite et les créatifs sont tenus et vaincus par son omnipotence yaa Muhammad ca yonent bi Muhammad isa wariga Muhammad mooy suñu kilifa Muhammad isa warigara Muhammad mooy suñu roykaay Muhammad isa isa Muhammad moo gën fi ñu nekk Muhammad isa isa Muhammad moo gën fañ jëm kenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam miñu may bayu ma na jaamu yàlla suñu borom du lebe man dafa war a set na set si xol na set si xel set si yaramam set si yéreem ta set si yàlla bañ seen ngir jaamu yàlla Muhammad ñun ne ndaw de ndaw alquran dañoo war a seen ngir xam alquran dañoo war a seen ngir am alquran dañoo war a seen ngir dégg alquran leeru alquran si xol mu set si xel mu set si ruux mu set foofu la xaj kon nañu sellal nañu ñaan yaay booy mu ñaan sële nañu ñaan baay booy mu ñaan sële nañu ñaan maam booy mu ñaan sële li may dëgg te mooy li wér li may dëgg te mooy li sax li la yàlla bëgg te mooy li wér li la yàlla jàngale te mooy li sax li yàlla si sax te yàlla nangu ko nee leen amiin nee leen amiin amiin amiin amiin amiin amiin noo noo ko ne tàccu xale bu baax a baax jërëjëf